Le euh, comité directeur Mingi euh, dit féliciter <clears throat> suñu frère de parti suñu candidat à l'élection présidentielle Oui, Karim Meïssa victoire binga nga xam ne gouvernement Sénégal Le gouvernement Sénégal avons ñoo au tribunal de Paris déposer une plainte ni comme créé jugé na Karim Wade dañu bëgg légui tribunal Bobu, nangu may len autorisation pour lepp lo xamni Karim amon na fa ci manam ci alal ñu nangu ko ñu dem première instance ñu gagné len ñu né doyul dem appel appel bi mom lañu confirmer tan yi ni gouvernement Sénégal lolu mu def mënul nek ndax créé bobu nga xamni bi mo condamné Karim Wad ñom reconnaître ñuko comme juridiction xamuñu ko donc du lépp lu mu def pour ñoom amul benn valeur wane ne ni tey après tribunal de Paris après la cour de la cdao après Nations Unies que tey organisation yo nga xam ne ay organisation yu crédible la ñoom ñëpp nañu Karim Wade ci li nga xam ne gouvernement daf ko organisé woon ak benn euh, maanaam juridiction boo xam ni juridiction spéciale la juridiction politique la muy créé pour bañ ba nga xam ne bi Karim Wade dina mën ñu jàkkaarloo ak euh, Macky Sall pour jële ko ci nguur gi ñëw liggéeyal Sénégal liggéeyal askan wi.